الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ci ndigalul cheikh محمود Mountakha Mbacké ibn cheikh محمود البشير li nga xam ne tey moo fi jëm na Serigne Touba yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ci ndigalam lañ fi teewe mu yóbbanti ñu kàddu yu nuyoo ne ñu nañ ko ko tegaat ci loxol rakkam di léppam Serigne Abo Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne moo fi jëmmi Cheikh Mouhamadou Fadil tey ci kaw suuf. moom bi ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem rakkam yu tedd yëpp te buñ ci tuddee jëwriñam Cheikh Mouhamadou Bachir tudd ci rakkam di Cheikh Abdoul Fattah Mbacké mi nga xam ne moom la teg liggéeyu màggal gi ci loxoom mu yor kàddoom di rakkam di léppam ak mboolem rakkam yu tedd yëpp di njabootu Cheikh Mouhamadou Fadel sëriñ bi nee na mi ngi leen nuyu baax a baax di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen diggante muy loo xam ne li leen boole mooy sëriñ Tuubaa te boole ak sëriñ Tuubaa nag moo ëpp doole lépp kon mi ngi leen di sant di rafetlu seenu doxin ngir xam ne na seen waajur wu tedd doo nekkoon rek ci ngeen nekk Cheikh Mahamadou Fadel te mooy bëgg sëriñ Touba ak liggéeyal ko ak jeex ci sëriñ Touba te yéen itam xam na ne ci lool rek ci ngeen nekk kon sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax leen gërëm di fedd li itam li nga xam ne doxoon na ci diggante seen wayjur yu tedd ya te muy firnde joo xam ne la ci gën a tuuti mooy boo demee tey ci kër Cheikh Mouhamadou Fadil danga fa fekk Cheikh Mouhamadou Bachir boo demee ci kër Cheikh Mahamadou Bachir da nga fa fekk Cheikh Mahamadou Fadil kon nag loolu firnde la sëkk ci seen diggante maa ngi doon nett lii ci poroxaan keroog bi nga xamee ne Cheikh Mahamadou Fadil bàyyi koo na fi di seet si Cheikh Mahamadou Bachir ba mu àggee fekk sëriñ Bachir ne ci biir di deeyaale ak boroomam ka nga xam ne moo nekkoon ci bunt ba tëj ko bi Cheikh Mamadou Fadil accès laajte mu ne ko sëriñ bi dafa fatu day déeyaale boroomam mu bëgg koo fëgg Cheikh Mamadou Fadil ne ko dee doomu sëriñ kenn du ko fëgg daa dem dinaa dellu waat ba Cheikh Mamadou Bachir génnee mu leeral ko ko ne ko dikkoon na fi waaye dañ laa fëggul ndax boo da nga doon tëju mu ne ko nag kuy tëj doomu sëriñ Tuubaa doo tëye sama caabi daal nangu caabi yoon kon waa kër Serigne Touba loolu lañ doxale woon ci seen diggante loolu nga xam ne Serigne Touba ko ñaanoon ci njabootam nag ba àdduna tukki du fi jóge ndax sëriñ Touba dindi na ci suñ diggante lépp loo xam ne mooy li yàq diggante ak bokk Serigne Touba na ko ci seen biir kon loolu yàlla yàgg te yàgg ci biir njabootu Serigne Touba gi njabootu Serigne Touba gi nag buñ ko waxee yëmul rek ci ñi nga xam ne ñooy ñu bokk ci moom képp ko yaakaar Serigne Touba rek. na nga xam ne yaa ngi ci biir njaboot gi te loolu danaa ko firndeel ci mujj samay wax kon sëriñ bi nee na mi ngi leen sant bu baax di leen gërëm di fàttaliku itam nag suñu ñaari kilifa yi nga xam ne ginnaaw Cheikh Mamadou Fadil ñoo ko wuutu woon te taxawoon fi taxawaay bu rafet ba bis bi agsi fii tey muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke Fadilou ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke Fadilou ñoom ñaar seen taxawaay rafet na lool ci biir kër Cheikh Mamadou Fadil moo tax ba àddina tukki itam kenn leen fàtte kon ñu ngi ñaan suñu borom dolli seen leer te taasuñu ci barke seen barke di ñaanal itam suñu kilifa gu baax gi nga xam ne ndëgg daaw teewoon nañ fii ci ndigalam muy Cheikh Sidi Mokhtar ñuy ñaan moom suñu borom dolli ay leeram te ci barkeem ñi nga xam ne ñoo fi teew ci. ndigalul président de la république Macky Sall muy ministre Makhtar Ba ak mboolem délégation bi mu àndal xam naa kii wax ci turu sëriñ bi di Cheikh Ahmadou Rafahi dana ko leeral ni ko si sëriñ Abdou Fatah santane li nga xam ne jëfandu ko ci màggal gi te sëriñ Abdoul Ahad ka jaar na ci léegi kon ñu ngi ko yóbbante nuyoo ci turu Cheikh mu taxa di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci bis bi ndax lépp lu ci def rek moom lu ko defal kon mi ngi ko ñaanal suñu borom dimbali ko kàttanal ko ba mbooleem mission bi nga xam ne am na ko ci réew mi suñu borom mottali ko na jox tam di tàbbi nag ci ki nga xam ne mooy borom bis bi di Cheikh Mouhamadou Fadil xam naa ne sëriñ si sëriñ Mamour dana ñëw ci laylatul isra wal mi'raj kon fi ñu tënk suñuy wax rek mooy ci jëmam ju tedd ja muy Cheikh Mouhamadou Fadil ndax moom dafa doonoon jëmm joo xam ne léppam may sa fa jeexal ci bëgg Sëriñ Tuubaa ak liggéeyal ko ba mu jugee rek amul benn bëgg-bëgg lu weesu bëgg Sëriñ Tuubaa ak liggéeyal ko waxtu nekk nag mu daan bind ay leetar sëriñ bi daan ko jaarale ci Soxna bu Bousso di sàkku ci sëriñ bi ndigal ko Sëriñ Tuubaa jox ba Serigne Touba santaane liggéey bi jumaa ji yónnee ci moom ndaw ne ko boo demee nee ko ndigal la ma daan laaj mooy jumaa ji nee ko na feex bu ko ci kenn man ku ñëw na ko ci fekk ko dem na ko ci bàyyi yàlla def na ci kàttanam nag ak pëstéefam xeer wañ njëkk feeñ ci jumaa ji moo ko wone xeer wañ mujj a teg ci liggéey jumaa ji moo ko teg kon Serigne Touba nangu na ab liggéeyam bind na Serigne Touba ab kaamil itam sëriñ Tuubaa ubbi kaamil bi xamal ko ne ko wa barran bi waalidayhi wa lam yakun jabbaaran asiyan kon moom ku bari ay tawfeex rek sëriñ Tuubaa sëriñ Abdou Khadir Mbacke daana wax ne Cheikh Mamadou Farid de suñ borom defal na ko sañ-sañ ci biir yoon wi sañ-sañ nag xam ngeen ne mooy lu amul fenn fu mu yem sañ na cee def sañ na cee dindi Cheikh Abdou Khadir daana ko seeral muy jëmm joo xam ne itam ni ma ko waxee léppam sëriñ Tuubaa بن رأي بير وغني شفك الدموع لحب الخديم فرضا أراه صوت السماء يرون خنجر بق سرين تبا فرض لا قريف وخاتنا بيعت بنواتي بالإرادة لكم لكي أحظى بحرق عادة من بعد ما اشتريتموها مني أهديتها لكم بغير مني فتقبلوها يا ملاذ كرما لازلتم بين البرايا علما mooy jaay gi mu jur jaayoon ak njuréeram jënd ko ak taalibe bi wëlbati ku wax ne bëggumaa doon doom ju bëgg a doonu baayam bëggumaa doon taalibe bu bëggu ceex kon lépp lu may def Serigne Touba rek la Serigne Touba defoon ci rasulullahi rek def daani ila matxi bi xubbu saati yi moo tax itam nag sëriñ Touba fay na ko ndax ba fii mu ne saa suñ tuddee Cheikh Mamadou Fadil day mel ne mi ci kaw suuf képp koo xam ne tiit nga woo ko ci aajo na ko ko suñ boon defaloon ci bi muy dund nga xam ne dañuy wax ne ku ma sa dugg biir këram jaaxle boo génnee da ngay ree képp ku fu ma sa indaal boo génnee yitte ji na saafara tey la ko ko suñ borom gay defal ba tey képp ku jaaxle te am posture boo doogoo ci moom rek daal di fekk ci ci loola loolu nag lu ko Sëriñ Tuubaa defal la la ma fi nettali woon daaw danaa ko fàttali bi mu demee ba toll ci ak mujjam dañ ko wax ne sëriñ bi dañ ko wax ne sëriñ bi yow de dafa mel ne àgg nga ci mag te sa njaboot gi fàgguloo leen dara dañoo bëggoon nag nga wane leen Cheikh Mamadou Fadil ne leen naa leen bàyyi ak sëriñ Touba ndax cere jàmbur du ma ko woon sama doom ba liggéey mu ca jooy moo tax bi mu fi bàyyi ko itam li mu fi bàyyi matul sax téeméeri junni tey jii nag Serigne tubaa defal na njabootam gi loo xam ne ba àdduna tukku du jeex kon lebal Serigne Touba rek mooy lu am solo muy jëmm joo xam ne itam sëriñ tubaa dafa wane ci moom xar baax ndax la ciy firnde mooy màggalu tubaa gi ku ne xam na ne sëriñ Touba da koo santaane woon kenn ku ne di ko defee sa kër bi Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke accès wéyal loolu bi Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacke accès woote ko ci biir waaye tey jii ku ñëw ci màggalu Kazu Rajab da nga xam ne Serigne Touba na na Cheikh du Fadim kon nag ñi ngi dogg ci dara jàmm nawet bii yàlla na ci suñu bon def barkeem ndax kat Serigne Touba Cheikh Mamadou Fadim dafa ma si yóbbante ci moom loolu ñëpp dégg nañ ko ndax booba dafa géej a taw ginnaaw bi Serigne Touba xamal ko ne naa la booleeg malaayika mi yor taw bi moo tax Cheikh Mamadou Fadil. saa su ma saan soxla taw bi rek taw bi day daal di agsi kon loolu la ko Serigne Touba defaloon sëriñ Touba jëfandikoo ko coom xar baax yu baree bare kon bis bii képp ko xam ne ñëw nga fi rek boo fi amee ak dogg ak pësteef na la wóone loola suñ borom daal la ko defal kon nag li ñu war mooy góor góorlu te sax ci ndigalu Serigne Touba bàyyi tere bi kon nag li nga xam ne sëriñ bi fàttali na ko bu yàggul Cheikh mun Mountakha muy ci nawet bi wax na ñëpp nañ tàmbali liggéey bi te ruuji loolu na ci ñëpp góorgóorlu te xam ne sëriñ Touba dafa bokk ci aw yoonam li mu wuuteeg mboolem yoon yi ci des mooy liggéey da ko def ci biir jaamu yàlla kon sëriñ bi nee na ngi sont yi ñëpp ci liggéey na ko kilifa yu jëkk ya daa santaane te Cheikh Mouhamadou Fadi fàttali naan nañ nañ bàyyi leen sow bi ak waa sow te dem ci penk bi te liggéey buñ ko defee rek suñ borom danañ ci dimbale danañ ci defar tawfeex kon sëriñ bi nee na mi ngi ciy soññ ñëpp ñëpp gën a góorgóorluwaat te xam ne sëriñ Touba ba muy santaane liggéey jumaa ji dafa waxoon ne maa ngi leen di ndigal ndigal loo xam ne fu waay jëm na ko fa yóbbaale mooy lépp lu ngeen di soxlaate ci lu ngeen mënta ñàkke lu mel ne néegub yàlla bi na ngeen ci góor góor seen kem kàttan ba fa ngeen yem te fu ngeen ca mënta àgg ngeen laxasaayu dem wuti ko ci anam gu lew te fu ca seen kàttan yam ngeen toog xaar fa say jaalullaahu baada usri yusran daan na te rikk nag maa ngi leen di wartandikuloo wartandikuloo lépp ndimbal loxo ne bu leen fajalee seen itte it day leen xañ seen jom ak seen ngor ndax yaara ngi yoo xam ne képp ku ko am ko ne war ngaa góorgóorlu ba doo ko ñàkk mukk képp koo xam ne amoo ko it war ngaa góorgóorlu ba am ko daane bokk na ci li koy maye nag ci la ci jiitu mooy fexe ba nangoo liggéey ba lépp loo xam ne mënu koo ñàkk ci sa yittee bopp nga di ko fajal sa bopp bokk na ci li jiitu ci la koy xañe it mooy ñàkk liggéey ak jër sa yitte yëpp wéeru ko ci loxoy doomu aadama yi kon loolu nañ xam ne ndigalu Serigne te xam ne ndigalu Serigne Touba kat lépp lu mu santaane lu ne luy am lay doon kon ne ñëpp góorlu te xam ne àdduna suñ borom lu ko bindee faw doomu aadama muy ami nattu léeg mu neex léeg mu naqari waaye su saa su naqaree nag na sa xel dem ca ëllëg ndax suñu kilifa gu baax ka Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne saa soo amee yitte te bëgg te bëgg faju teew mu teew neena bu la yàlla dimbalewul lool rek da nga ñàkk sa ngor ndax da nga jëfal la ko xañ baa nga wax ko kon loolu nañ ci góorgóorlu te xam ne am xasibtum an tadxulul jannata wala ma yaatikum masalu lasina xalaw min qablikum mashathumul bashaa wa darraa wa zulzilu xata yaqulu rasul walazina amanu mahahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib nañ xam ne kat bala ñoo tàbbi àjjana faw suñ borom dana ñatu ba xam ne liñ doon wax dëgg la am déet wala nabluwannakum xatta naalama almujahidina minkum wassabirin wa nabluwa axbaarakum kon la sëriñ Abdul Ahad Mbàkke waxoon rek mooy murit fu mu nekk na yàmmale wéet fa ak wéetaliku fa te xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa fa bàyyi daana wax itam ne murit na góorgóorlu ba fexe ba mel ne ëkk te bañ a mel ne xobu garab ndax xoru xobu garab kat ngelaw lu jug dana ko yóbbaale waaye ngelaw la ko dugal ci pax ma du ko fa génn waat kon nañ góor bu baax a baax ci gën a farlu ci ndenkaane Serigne Touba te xam ne sëriñ Touba kat lépp lu mat a ci àdduna ak alaaxira defal nañu ko li ci mooy delloo njukkal delloo ko nag mooy sax ci lim digle te ba te sax ci te tey wattandu ko lim tere te xam ne kat yoonam bii noppi na ci ndax waxoon na Serigne Amsatu Serigne Amsatu Jaxate ne ko Amsatu mu ne ko Mbàkke mu ne ko sama yoon wii sama dëkk bii sama xasida yi sama dëkk bii doone lu ci kenn dara lépp maa ko téye sama bopp kon na xam ginnaaw bu ñu xamee ne Serigne yii doona lu ci kenn dara nañ xam ne kon lépp moo ko yoral boppam te Serigne lépp lu ne ci loxoom la mu ci bëgg rek a ci am te waxoon na ne ca njaarim la ma sunu borom wane li naar xew sama ginnaaw ba lépp lu ma bëgg am sama lépp lu woo bëgg sama yoon rek moo ci am bila afatin wala kadrin du ngeen tugg du ko dégg mukk ci mbirum Sëriñ Tuubaa kon yàlla nañu suñu borom dimbale may ñu ak dégg ak topp te waxoon na Cheikh Mahamadou Fadil ci lam ñu Sëriñ Souhaïbou bu laa ko déggee neen damaa bàyyi ko fii dem seeti Cheikh Mahamadou Bachir ne ko dama bëgg nga fàttali ma tuuti ci ndenkaane Sëriñ Tuubaa loo xam ne dana ma mën a jëriñ Sëriñ Souhaïbou bu ne ko mastama fekkee di ci néeg ci njëriñ muy wax ak Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh du Fadel may dugg ci fekk waxtaanu sëriñ bi di jeex mu jël ñaari loxo bi teg ko ci seen bopp yu teddee ne leen jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla bu ngeen jaamu jiwut yàlla de li ngeen fii gis muy nuur dara def ko ci ndunku runku bal muy demam moom sax sëfuma kon nañ xam ne sëriñ Tuubaa mbiram defu ko rek ci ku bokk ci moom waxoon na ne bu ngeen dégg mukk li may wax ci sama xasida yi ci sa dami damiru mutakallim yi may wax képp koo xam ne bokk nga ci man te jub rek nanga xam ne tàbbi nga ci biir kon nag nañ sant yàlla bu baax bi ñu booleeg Sëriñ Tuubaa te xam ne loolu kenn mënu koo fàggul soo te waxoon na ne def naa ci sama mbooti mbooti xasida yi dox na tuuti ci mujj jamono sama mbooti xasida yi ñooy jug di yëddu kuréel yi gépp képp gépp kuréel gu njëddu fekk nga nekk ci suñ biir ak lu koy baaxal ñu faj seen aajo ngeen nekk ci cant ak sant yàlla te du ngeen xam lu ko indi waaye gépp kuréel gu njëddu xool ko ñu nekk ci lu yàq sama mbir ñu raja leen de féewale seeni bopp ñu nekk ci fitna te duñ xam leen ca tàbbel ba sawara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu